dañu nekk ci pays boo xam ne en voie de développement donc état bi amul possibilité fu nekk mu indi fa ab docteur ab médecin donc ci xariñam ci la organiser wu def benn genre pyramide sanitaire maanaam commencé ci poste de santé mun naa wax sa case de santé poste de santé centre de santé dem ba hôpital yooyu niveau yëpp nag ak kum fay teg. ñun dañu tàggat forme teg ñu fii ak suñuy limite fi ñu war a yem suñ fa àggee dañuy jël man maa fi nekk ak sage-femme maîtresse sage-femme ci wàllu maternité am nañ suñuy limite fu ñu yemloo suñu fa àggee dañuy jël conditionné ko defar malade bu baax dañ ci war a def yëpp ñu def ko yëpp ko ci ambulance mu yebal à niveau supérieur fu ñu gën a koy fu ñu gën a xariñ loolu nag su ci sawaay ñëwee dugal loxam indi ñu ambulance duñu mën du dul sant ko gërëm ko. population bi xaw na takku macha allah non seulement population de Mboro ñu ñoo leen couvrir mais n'empêche am na ay villages yoo xam ne dafa dépendre ci ñun donc découpage sanitaire bi respecté wu découpage administratif bi à peu près ñu ngi ci ay dix huit à ay dix huit am habitants. Fi dafa nekk lu am solo su ñun muy mboor gi ñu taxaw ndax ñu aussi di poste de santé bi aussi ñu am si ay souvenirs yu bare bari ndax comme ni ko Youssou Senghor waxee ndax def na fi am naa fi ay souvenirs yu bare bari ndax naa ni fii laa duggee noogu góor donc Youssou Senghor mi euh, xam na si lu bare bari donc tey suñu demee ba tey yàlla dimbali ñu mu néew ak mu bari dafa naa amuñu lu dul amuñu aussi lu département bi def comme ni ko ñëpp xamee le président Macky Sall mi ngi def lu am solo si santé bi di def lu am solo aussi tamit vraiment si li nga xam ne mooy jëmale Sénégal kanam mais dama jàpp ni zone bu nekk bu fekkee doomu dëkk ba ma nga fa yàlla am lu mu ko mën loo warul xaar ni certes lépp état la war mais warul xaar ni damay xaar bi état ñëw pour def ko ku nekk ak li yor sel mu néew ak bëri war nga mën a ñu am loo mën a contribuer si fi xam ni tey fa nga fekk baax. di woo waa Mboro nag di lancer benn message jàpp ni. maa ngi fi lim parce que defe naa ni liste mouvement yu bëri bëri yi fi nekk mouvement Mboro début mouvement And Defar Mboro SOS dafa jot vraiment waa Mboro doomu Mboro yëpp toog waxtaan parce que bu fekkee kii di xëcc fii nii ndox mi lay kaas kii di kaas fii nii nii affaire lii lay kaas kii di kaas dafa naan bu ñëpp bu ñëpp bu ñu ñëpp bu ñu toogee je pense am lu mën a amal njëriñ bu mën a apporter Mboro donc loolu laay woo waa Mboro yi doomu Mboro yi ñu taxaw parce que tey dañu dépassé affaire politique politicienne tey li am solo mooy politique de développement politique sociale la nit ñi soxla mais politique wax xasteeg yooyu je pense que ñu nekkuñu ci dynamique bop donc ñi ngi wax wa mbor dal vraiment ñun ñëpp ñu ñëw ñu andando bokk nday bokk bay xol li nga xamni la mbor soxla Mbour am problème yo xamni war nañ ko war nañ ko xex problème yu am solo yo xamni war nañ ko xex man je dis toujours li gëna am solo te gëna urgent lañu wara taxaw moy fexé ba découpage administratif ñu fexé ba rectifié waat euh, li nga xamni tay amna am na à mbor li nga xamni tay mom la amoon ñu delawaat ko parce que tay ji tay ji li fi nek bu nee Mboro war na am hôpital bu état bi bëggee amul suuf fu mu ko defee bu dee Mboro war am sapeur bu état bëggee amul fu mu ko defee bu dee war na am leneen aussi amul fu ko defee donc loolu nag dafa jot ñu jóg taxaw si ànd bokk ndey bokk bàyyi taxaw jooytu ko ba loolu mun a tax a